maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi tey di sant soxna Soda Sarr responsable du jour baat yu gàtt rek laay wax muy ma gërëm ku leen sant leen ci forme bi ngeen ko defee parce que forme bi lañ bëggoon dama leen wax na leen ñëpp kuy organiser te nekk biir Touba nañ ma respecté ndigalu Serigne Touba ay jigéen a fiy nekk ma ne ko kon bu fa góor nekk bi ci toppaat ma ne ko. bu mu am musique bu mu am tëgg te it bu mu dépassé cinquante à soixante personnes parce que liñ jublu mooy respecté ndigalu sëriñ bi soxna Soda Sarr def na ko jërëjëf yëf yi du ci mobilisation yi yëf du ci déportation nit ñi ay politiciens lañu depuis trente trois ans ñoo ngi politique xam nañ naka lañ koy defee loolu yomb na mais li jafe mooy lii mooy le 17 novembre ca ngoon vingt et une heures bu ñu wàññee ñu xam ne Touba fii Serigne Modou Bousso Dieng mooy doomu dëkk bi ñu xam ne Serigne Modou Bousso Dieng doomu borom dëkk bi ñu xam ne Serigne Modou Bousso Dieng moo jëflante waa dëkk bi salaamaaleykum wa ñuy wax ci euh, docteur Serigne Modou Bousso Dieng nag muy ki nga xam ne si moom moo fi nekkal dongo yi muy ki nga xam ne moo fi nekkal sëñ Touba mooy ki nga xam ne moo fi nekkal jigéen ñi mooy ki nga xam ne moom moo fi nekkal social bi muy docteur Serigne Modou Bousso Dieng ma bëgg carte bii ngeen gis nii. su soobee yàlla ndax euh, lii rek moom moo moom moo ñu mën a jàppale te li nuy jàppale mooy lan su bés baa ci ngoon kenn ku ne na xool kart bi ni mel nga fas yéene ko dugal ci urne bi ndax kii nekk na jëmm joo xam ne bés bu ñu ko jàppalee su toogee ensemble naqaru jigéen dana jeex ndax jigéen rek ko ñor sëñ Touba moo ko ñor dëkk bee ko ñor daara yi ñoo ko ñor sociale bi moom moo ko ñor ndax day dox si social te du bëgg kenn yëg ko. dalay jox xaalisu ordinance nga dem dagg ko te kenn du ko yëg bugg sax ku ko yëg kon kii ku jar jàppale la ñu koy gërëm bu baax di ko sant nag ndax lii lépp moom la kon nag tey damaa bëgg ñun ñëpp ñu jàppale ko moom mi di sëñ Modou Bousso Dieng mi ma bëgg ñu jàppale ko jàppale bi du ay wax kese jàppale bi lii la muy carte bi nga xam ne incha allahu rabbi suñ ci yàlla yóbbook jàmm bii la dugal ci urne bi muy carte bu baax bi ñu jàppale ko su ko defee bu toogee ensemble lu nu bëgg yàlla mën nañ cee jàppale bu baax a baax te moom it ku ni jàppale lay doon surtout sëñ Touba su taxawee ni bëgg naa dara ci Touba ku gëm sëñ Touba war na cee mën a jàpp te moom sëñ Touba rek moo ko ñor kon moom ku nu war a jàppale la barki démb bin fii toroxal jumaa ji moom moo taxaw fii défendre ko ba àdduna bépp taxaw ñëpp xam ko ci boobu nag la ko ñëpp teg loxo ba léegi sii muy koo xam ko ñeme dëgg la ku am fulla ci boppam ku am fayda ci boppam ku am personnalité ci boppam lu ma am rek yéen la fu ma yéen la kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax te kontaan bu baax a baax jërëjëf sëñ bi kontaan naa jàng jërëjëf